jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne tey nag kii ñu dalal yàgg ngeen koo gis waaye ci appel bi des fois du ñàkk nga dugg ci kër boo xamante ne da nga fay dajeek ay mbër yoo xamante ne vraiment da leen di xam ci réew mi muy Angleterre bu dóor dóoraat ñu gëj koo gis loolu diggante bi mu bëree ba léegi ak diggante moom màjj màjj boobu ba léegi gisuñu Angleterre man sax jàpp naa ne daa bàyyi bëre parce que am na mbër yoo xamante ni ñu baal ma waaye dañoo war a wuti kii quoi coow coow xam naa moom ci la bokk dama koy nuyu bàyyi ko bu nuyu bokk internet yi su ko defee jubeel waxtaan angale maa ngi lay nuyu baax di la siyaar ñoo ngi lay fay diir wasaare maay jili borom wasaare ñoo ngi lay fay hmm. sant yàlla julli si yonent bi barke barke Baay Laay Seydou barke Baay Laay Seydou barke Baay Laay Seydou hmm. Baay Laay Seydou moo xewle ndeysaan dëgg la dañoo ñëw appel si Mm-hmm. gàlla Cheikh Paul Cheikh Paul suñu doomu nday mm-hmm. ñu fi woon ñàkk nag dañ ñoo invité quoi fa yow yow maa la invité mais Cheikh Paul moo ma invité man <laughs> yaa ma invité fii yow man maa la invité ah ah waaw jërëjëf Cheikh Paul suñu garaaw bu baax mm-hmm. anglais tey ci làmb da nga bàyyi bàyyi nga bëri xalaatuma ko doole ji ma yor li ma yor si doole naa toll fi yor si doole ji toll nii di ko di di mii naax saay du ma ko def làmb dañuy dem ba jeex xalaatuñu baay ku dóor maaji maaji mu daan di nga toog fii naan da ngaa bàyyi bëri. non nga dóor nga maaji maaji mu daan mais maaji maaji mu nga dóor mu daan dégg naa mystiquement dañ ko dañu jàpp maaji maaji maaji maaji dañ ko entendre mystiquement moo waral nga dóor ko mu daanu mais yow sa compétence bi nga am ak sa taay bi nga am dayo bi nga am ci làmb lan moo tax ngay toog temps bu yàgg doo bëri. non mais ñemewu rek. gaa yi ñemewul rek. lamb ji koo wax mu ne la. non non ragal. booy remarque barki démb Ndiaye <clears throat> médical la fi yónnee tànk boo xamante ne nee na xaw ma la foto envoyé si internet bi ne daa blessé tànku jàmbur yu ñuy foto di ko di ko envoyé si internet yi la war a bàyyi dara jotu ko. la huit bii la ñu waroon bëre. yéen ñaar ku tëggoon loolu. Ousin production ko tëggoon. affiche bee ngi nii sama téléphone le huit la ñu waroon bëre. gaa yi ñemewuñu gaa yi xam xam nañ li de fi bëre doole jéeg fi. anglais bu ñu doon wax tey fi mu sa catégorie ci làmb ci ñan nga logique gu làmb ñoom Sa Thiès laa waroon bëreeg ñoom Reug Reug mais xam nga làmb nu mu demee la nii nii nii nii mais nangu naa mooy may booy sens ba ma defaat lu leer ñoom ñu ñëw ma bëreeg ñoom. yan booy ñooy sa sens. yan yi fi nekk mën naa leen may sens. ñan nga tuddee may sens. xam nga di laaj dina booy dama leen may. sens non xam am na booy ñoom ñoo lay may sens. non man toolu ma làmb fu ñu may maye sens dañuy bëre grand combat may bëre grand combat ni ñoom dañoo am doole ma am doole ni ñoom dañoo mën a bëre ma dàq leen bëre fuuf gën leen soxor. waaw maa fi fii nii may sax yan booy nga mën a may sens. na fi booy yoo xam ne tey jii bu ñëwee man mun naa leen may sens. booy yoo xam ne bëgg nañoo bëri ak boo bëree ak yow. gàmmu gay bu ñëwee mun naa ko may sens jàppale ko. gàmmu gay man. gàmmu mi soq du ma woon bëri ki dem mun naa ko may sens jàppale ko. Ada Fass gaa ngi koy wutal yoon bu may ñëwee tam mun naa ko may sens jàppale ko. Ada Fass man non booy yu bëri mun naa leen jàppale man. dama fi nekk pour may non Ada Fass moom bëgguloo jokkeel la daan. Ada Fass léegi aju na ci non fi mu fekk jokkal la rek mais mënul jokkal booy yëpp xam booy euh, jiile ma xamal la leen làmb moo neex tey rek mbër yi ko wax mu a la kii mais gars yi xamante nañ bu baax a baax a baax ñun duñ foowee làmb duñu caaxaanee làmb te dañuy dañoo respecté làmb te dañuy entraîné Hmm. lu leer laa la wax jiili gars yi maa leen mën fuuf. Angale ñaata combat nga def boo ñu doon wax sa palmarès ñaata combat nga bëre ñaata victoire nga ci am si ko làmb dëgg bëre na wit combat. huit combat Caaka Fay moom fi daan Kaaw Cissé. Hmm. Kaw Cissé men. waaw bu Dalifor mën ni la Gandiagne numéro 2. Caaka Faye men. moo fi daan Kaw Cissé bu Dalifor mën ni la Gandiagne numéro 2. daan booy euh, kii Eumeu Sène junior bu Kébémer daan maaji maaji bu bërki démb daan kii nu mu tëddatee euh, jër bu Gàmbi daan kii nu mu tëddati sax euh, Ahmed Bombardier Ahmed Bombardier maa ko daan ku daan ñooñu ñëpp tamit li ñu waxante dëgg làmb am nga si place mais Engel yow yow fi mu toll nii actuellement macha allah corpulence bi nga yor sa retard ci làmb lan nga jàpp ni moo ko indi. non sama retard gars yi bañ maa jël rek li ma gars yi di teggi la rek. ko wax ñu naan booy boobu day xeex dafa soxor. non mais gars yi dañu ne da nga nekk ci écurie da nga nekk ci écurie no fa say moroom écurie ba tas ñiy dem fee garga mboose tukki ram daan tukki hmm. euh, góor a soog bàyyi garga de bàyyi hmm. dem ci écurie papa saw yéen actuellement seen écurie mënatula dox yéen ñu ci bari yow boo gëjee ci écurie ba ak léegi dégg naa def na cinq ans booy gisuñu la sax man écurie bi barki démb rek laa fa jóge avant appel bi barki démb laa fa jóge ñoo suñu coach su carré ngi fa gaay ngi ñëw entraînement normal booy ñoo ngi am combat ñun ñuy tanoor yi si kaw ñun ñoo la gaay yi ñemewul léegi yaa kan mooy leader ba. waaw leader bi suñu grand Zos a fi ne. Zos mi demoon moo ñëwaat nekkaat. moo ñëwaat place am la rek. saa saa ko soxlaa ñu jox ko waaye ñun ñoo ngi fi ñun ñaay rakkam ñoo ngi si ginnaaw di entraîné ku ñu xool xam ne ñoo ngi entraîné. Hmm. ah mais xoolal mais déggoo bi ngeen war a déggoo ci écurie ba est-ce que am na fa dóor dóoraat. déggoo bi ñu war a déggoo. parce que yeneen écurie yi damay gis xale yi dañu déggoo dañu bëggante dañuy jàppante mais écurie dóor dóoraat dese nañ faa gis loolu. écurie Dóor waar nag ma wax la ko fii nii nii. Hmm. ba ñii dem ak ñi fi ne famille la. ba léegi ñi dem ak ñi fi nekk nañ meloon lañ mel ba léegi buñ dajee entrement bu ñu waree entraîné dañuy entraîné. Hmm. buñ dajee feneen bu ñu waree contact dañuy contact suñu biir parce que loolu lu yàgg la famille la ay frère la fi ne ay frère. sa diggante ñoom ay góor soog ñu dem garga de affaire yooyu est-ce que mu ngi diggante ba léegi dara doxul suñu diggante parce que fee ñu nekk ak ñu ne yëpp benn rek dañoo ñoom dañoo dem fële ngir liggéey fële lañu yaakaar. Hmm. xëy peut-être yaakaar bi ba dem foofu yàlla suñu borom jàppale rek ñu nit yaakaar moo ñu fi ba rek. Hmm. yaakaar rek ko fi ba. Hmm. waaw te lam moom fii laa la ko waxee bàyyi jiile bu ñu fi yàlla bàyyee rek jàmb rek di am. Hmm. suñu wàll dañ koy jël si lam mi neex mi nakari. Ah, dañ jël force sa wàll da nga koy jël ci làmb te ba ba at bi benn yoon nga ci bëri te combat bi sax combat boo xamante la ay adversaires yi dañuy blessé ñu jël combat bi jox la ko. waaw Angleterre yow. sa sa sa sa sa des na de. non non eh, adversaire bu blessé nag man mosuma bëreegum adversaire bu blessé. mais adversaire yi ñooy dem ba si biir xam ne du baax ñu ñu déclaré blessure wala ñu déclaré beneen affaire. da nga bëgg a mbëri dañ lay daw. non mais sûrement yow loolu bu ma la waxul sax war nga xam. mbëri ah, man du ma la gis ci làmb Angleterre du ñëw samp ndënd du ñëw tuus du ñëw wàcc des fois booy di bëri. man ba ma njëkkee dem ba ma njëkkee dem ba ma ba ma mujj ba may mujjal dem làmb di fa sañ samp ndënd CNG dañ ma naroon aaj. lu tax parce que dama fa ñëw samp ay booy cambal càmbal ñoo di daal sama dënn ma duma leen ñoom ñëpp CNG foto ma ne dañ may aj man xale du laal sama dënn ngaan maay fii nii hmm. man mbëru VIP si kaw ñun force ñoom laa war a bëreel te damay bëreeg ñoom lu leer laa la wax bàyyi ji la loolu du débat sax nan nga gisee retour Zos ci làmb parce que Zos ñëw na hmm. mais retour bi doon def dinaa bi mu toogee bëriwul diggante ma Alioune Seye 2 def ci échec. non ñëw loolu accident de travail la. xam liggéey boo gis. Hmm. parfois nga def si euh, fautif quoi accident ñëw nga nga gaañ. accident lan nga tuddee accident. accident de la parce que jos Alioune Seye 2 ku gis làmb ni nu mu déroulé da xam ne. Zoss indi na li mu waroon indi yëpp peut-être xaw ma loxo Alioune Seye moo ko gaañ xaw ma nu mu demee noonu mais loolu du coup. non coup moo ko dóor. coup la ko Alioune Seye dóor ci bët jàppee moo ko coup de. ah bu la neexee ñun gis ñu fa leneen gisuñu fa leneen parce que Alioune Seye actuellement fi mu toll nii adversaire potentiel parcelle. yaakaar naa Modou Lo la. adversaire u kan. waaw ah, naa Modou Lo daan ko. waru mën dafa yàgg ci course bi. dafa bëri ku ne Alioune Seye ma daanee maaji maaji moom laa njëkk a laaj. Ah, xamoo sa bopp. barki Rasulullah dafa xamoon ne bu ñëwee ma def ko ni ma def maaji maaji. Alioune Seye 2 mën nga ko dóor mu daanu ni nga def maa ji maa non yow xamoo sa bopp Angleterre xamoo sa bopp. xamoo sa bopp Alioune Seye mi bëri Modou Lo bëri Moussa ay naanaan ci làmb mu jëye dóor jos bëri ki dem ne Alioune Seye ngay laaj. bàyyi jiili ku dul Alioune Seye 2 mën naa laa dóor nga daanu. ci gàllaaj la wala ci lan nga ko non si force rek am doole rek. da nga bëgg a wax yàpp doole Alioune Seye. mais doole yemul boo xoolee suñu suñu style yi xam ne bokkuñu. ñun doole ñu yor ñoo ko moom. ñoom doole yi moomuñu ko. gars yi doole wañ ñun ñun foo ñu fekk ñoom suuf si bokkut. waaye jii yow sa ko xool xam ni macha allah. te laaluñu weñ de entraîné wu laaluñu weñ suuf si rek ñu sax weñ di sonal suñu bopp. Hmm. bokkul bàyyi jëli. du naan cin bokkul safin. Hmm. bokkul doole doxul jaam. gars yi dañ ëpp doole fuuf. sa diggante ak ay ñoom hmm. météo. Hmm. ñoom Daouda Camara. Hmm. ñoom rek topp sa ginnaaw ñoom Pape Niang. waaye caaxaan ñooñu ay gaynde lañ. dégg naa de euh, nu mu tuddati euh, waaye nu mu tuddati tonnerre. ñu ngi koy wutal adversaire. tonnerre de moom xanaa buñ la ko joxoon di jël. tonnerre moo si kan moo daan. tonnerre ñu daal laay Pythagore barki démb jël bu rëy ba. waaw ah, waaw bëgg ma jek génnee tonnerre làmb ji. tonnerre mënoo koo génnee làmb ji. booy daaxe mën naa koo génnee làmb ji. tonnerre men. tonnerre de sa waay mën naa tonnerre bëgg la bëgg la. ko bañul dafa ma dafa ma war a bañ. tonnerre laay Pythagore dafa for. for laay ko mën. laay ko mën fuuf dafa for gis nga làmb ñu mu déroulé. tane dóor laay ñu daw jàppante xeex ñoom ñaar wuree ci bëre mu daan laay Pythagore jël bu rëy ngay wane ni damaa dëkk parcelle man daa fa jëli ma ko joxoon ah. du ma du ma jàppante ak moom suñ su ma jàppante ak moom nañ ko jox victoire mu dem hmm. lu leer laa dama koy dóor mu daan loolu nag ay waxi Angleterre la ma ngi koy jaajëfal bu baax maa ngi lay jaajëfal dina kontaane. Hmm. Hmm. Géle yàlla ñu fi yàlla defal jàmm rek. amiin yàlla ñu yàlla defal jàmm. waaw bu ñëwee ñu naan waaw. waaw mais di sant ñoom Cheikh Paul. Hmm. gaal bi ñu ne nii gaal Cheikh Paul la suñu xarit la. suñu doom ndey la di la sant yow it. parce que déplacement bi nga def ñu yombul quoi. amoon nga yeneen yitte. nga bàyyi yitte yooyu ñëw. di def ak ñun fi émission kon. duñ def lu di la sant di la gërëm. Hmm. di sant ay ñoom ñaar. sama xarit nga sama doom day Pape Ndak Ndiaw. diin hmm. ci Cheikh Diouf. Hmm. bàyyi ñu kenn ñoo ngi sant Thiamas gaa yëpp ñoom bàyyi laat. Euh, ñoo ngi sant daal ñoo sant ñëpp di la sant. sa caméraman bi tamit. booy baax la. di ñaanal sama fils la Adama. wasaare bi yow nga dem ba am sa sa télé bopp. amiin waaw loolu laa lay ñaan parce que yow suma rakk yow sax doo sama rakk suma doom la. dëgg la loolu suñu doom la. dëgg la waaw yow daa am fu ñu loolu moom dama koy nangu yaa ma yar. mais nag def ma def ci man li ne ci man. diili gars bu <laughs> ñëw léegi moo doon gën a yomb si ñoom. Ah. lu ñuy gën a xaar muy gën a metti si ñoom. ah loolu moom sa wax la lu leer laal wax yow xam nga si dara si doy sax lu leer naañ laa la wax hmm. yàlla nañu yàlla defal tawfeex rek amin yaa rabbal alamin ñu koy jaajëfal bu baax moom Angleterre bu dóor doraat di ko bégewaat bu baax di kontaan ci ataaya ñaambay bi nga xamante ne vraiment ci appel bi mu ñuy ñu ñuy bégee di ñu teral di ñu jàppale ñu leen di jaajëfal mbokk bu baax di souhaiter un bon anniversaire sama jeune transitaire bi Basir Samb maa lay ñaanal gudd fan ak wér jàmm